ma ma yokk foofu dara rek. Mhm. mooy euh, information yi ma yi ma jot euh, muy démb. Mhm. yaakaar naa jar nañu rendre hommage euh, Baye Fall yi nga xam ne ñoom la sëñ bi wattuloo dëkk bi ci anam googu. Mhm. dafa mel ni seen sago seen sang-froid seen sago tax na ba. dégénéré niñ ko doon ragale. dëgg la amoon na. débordement xëy na xale yi et cetera sax am na ci ñoo xam ne sax ñu bari jàpp nañ ne duñ waa Touba dëgg-dëgg. Mm-hmm. dañ leen doon jëlee feneen di leen indi ngir rek. Mm-hmm. mel na ñuy war a war a xotti orma dëkk bi wala yu demee noonu. pour Touba yemoon fépp daal voilà <laughs> donc euh, loolu nañ koy bàyyi xel te jàpp naa ne liggéey boobu ci euh, sunu mbokki Baye Fall yi def. lu mm-hmm. am am solo la lu jar rendre hommage te dooleel leen ndax euh, la ñuy def li leen sëñ bi defloo. kenn ku nekk ci ñun sa warugar la muy sàmm ormay dëkk bi. Hmm. loolu kenn ku nekk ci ñun te rawatina sëñ sëñ mu tax am na discours yu mu def yoo xam ne sax ndaw ñi sax lay gën a jiital ci di leen ñaax ci luy sàmm dëkk bi lu koy taaral luy euh, euh, dooleel orma ji et cetera loolu lépp euh, ndaw ñi sax la ci sëñ bi gën a ñaax. Hmm. kon nag ndaw ñi nañ xam seen bopp xam ne. c'est contre-productif ñuy def loo xam ne day contraire ak ndigalu sëriñ bi. Mhm. loo xam ne day mel na li ñuy xotti xorma dëkk bi loolu c'est contre-productif cause bu ñu mën a défendre lu mu baax baax. lu mu mhm. nekk nekk ci dëgg. Mhm. suñ ko tegee ci jalgati ndigali sëñ bi ak xotti xormay dëkk bi cause boobu lu mu baax baax lu mu nekk dëgg-dëgg mën naa gàllankooru kon nag ñoom du seen du sax seen intérêt. ñuy def dara dara dara dara loo xam ne. day day day day day wuute ak ndigalul sëriñ kon nag ndaw ñëpp ci Touba ak li wër Touba war nañu bàyyi xel loolu Euh, ci euh, respecter euh, li sëñ bi digle respecter xorma ji nga xam ne moo moo moo yellu dëkk bi te jàpp naa ne sago ji ci Baay Faal yi wane ñi sëñ bi liggéeyloo ci loolu tax na débordement bi wala niñ ko ragale woon ci mu àgg fenn fi àggu fa mm. Mm. te jàpp naa ne danañ continuer ci noonu su ko defee ndaw ñi itam ñoo war a gën a ñenn ñi nga xam ne ñooy ñoom la ñuy dugal ci kii bi ba ñuy bokk ci yenn manifestation yi nga xam ne Euh, day mën a déborder. Mhm. ñoom ñu bàyyi xel ne lu ñu mën a defit euh, sàmmonte ndigalul sëriñ bi moom bokk na ci li leen di euh, mën a sax may li ñu bëgg su dee fekkente ne li ñu bëgg mooy mooy mooy dëgg. Mhm. waaw loolu daal lu lu mat a bàyyi xel la. est-ce que sentiroo tuuti tuuti fristration ci yi leen nag ci murit yi mel ni dañ leen a xaw a wala boog li ñu doon xaar ci sëriñ si gisuñu ko wala yéeg si bu fekkente ni yaa ngi seetaan réseaux sociaux yi. waaw xam nga réseaux sociaux yi moom dëgg la mën na nekk baromètre waaye du baromètre buñ mën a bu fiable à cent pour cent ndax ku ne xam na ne man informatique laa def xam naa ne am na ñoo xam ne ay robot la ñuy doon di def ay commentaires yu négatif ci tel dañ leen di daanaka nit mën naa am na société entreprise yoo xam ne société yoo xam ne internationale euh, dañuy xarañ ci xarala yu yees yi ba nga xamante ne mën nañoo créer ay centaines wala des milliers de de hmm. de de de profil hmm. yoo xam ne ay faux faux faux profil lay doon hmm. ñuy dugg ci commenté di commentaire di saaga sëriñ si di wax lu ne te fekk ab agenda politique lay doxal pour ñenn ñenn financé loolu ngir mën a orienter opinion bi loolu nag euh, nit ñi war nañ ci bàyyi xel jàpp naa nit ñi yeewu nañ ci de plus en euh, lu mel ne team xorxe euh, ku ne dégg na reportage bi ci fi defoon wane ne ñoom am na élection ci Afrique ak ci yeneen réew yoo xam ne dañ fay dem ngir jéem a orienté opinion bi ci benn anam gi. Mhm. ci créer ay faux comptes. Mhm. Euh, di jéem a baaxal lenn di jéem a bonal lenn di def ay commentaires loolu mënee su cee euh, réseaux sociaux yi ba ne euh, lii mooy li li li wér. Mhm. waaye liñ mën a wax mooy liñ mën a wax mooy dëgg la frustration dana am. frustration mag ñi sax <laughs> am na ci ñoom. waxuma laa ndaw ñi li sëñ Cheikh naa doon wax ne. manifestation loi bi li mu wax mooy amul sax ñaan te te abus de langage boobu ñun ñëpp dañu ci yóbbaale. naan hmm. autorisation. Hmm. ndax fi ne tellement dañoo aaye aaye ba léegi sooy euh, wut euh, doxum ñaxtu sax danga naan damay wut autorisation te fekk autorisation waru caa am ni ko suñu seexu naa leerale. Hmm. Euh, lu la sa constitution may. te bis bu set ñu aaye la ko loolu lu frustrant la. de faaw mu mu mu mu metti loolu lu wér la leneen li ci des it mooy. jafe-jafe yi am ci réew mi fi mu ne xale yi ñu tëj nga xam ne dañoo yaakaaroon ne lu mën a xew su élection yi jàllee moom ñu tijji leen. Mhm. ñu ne leen léegi da ngeen toogaat nangami weer. Mhm. wala sax kenn xamut. Mhm. Euh, économie bi taxaw. Euh, ba tax xale yi di jël gaal yi di génn réew mi. di dem Nicaragua di dem Espagne et cetera. loolu euh, conséquence la ci li xew ci réew mi situation politique bu réew mi. conséquence la ci ndax économie bi dafa taxaw investisseurs yi wóoluwuñ indi seen alal Sénégal investir fi ñi amoon ay entreprise seen entreprise doxut loolu ndax dañoo génnee ci crise Covid. dem ci crise politique bi nii loolu day indi gàllankoor ci koom-koom bi ba nga xamante ne chômage bi ku ne xam na ne yokk na taux de croissance bi ñu doon wax ne war nañoo àgg deux chiffres ku ne xam na ne ay 5 pour cent autour de 5 pour cent la. wàññeeku na bu baax. pétrole bi ñu doon yaakaar ngir mu gën a indi alal ci réew mi. dem nañ ba ne léegi dàq nañ euh, production bi. Mmh. yaakaar naa at dàq nañ ko at wala bokk lu ko ëpp. wala mmh. xamuñ. Mmh. te loolu lépp li ko waral mooy crise bii ñu nekk crise politique bi. lool nag faw mu indi frustration ci population Sénégal rawatina ndaw ñi nga xam ne ñoo ci gën a ñoo ci gën a loru. ci wàllu chômage ci wàllu lu demee lu demee noonu. te man jàpp naa ne suñuy indexé waruñoo indexé kilifa diine yi ndax loolu kilifa diine yi teguñ leen. kilifa diine yi du ñoom. Euh, ñoom ñoo fi indi ay bi mm-hmm. <laughs> ñan ñoo fi indi ay bi nañ ko laaj mm-hmm. euh, kilifa diine yi du wàllu économie bi du ñoom au contraire sax économie bi lañ ciy def dëkk